jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey jii nag ni ngeen koy gisee ñu del siwaat file eh, ci Pikine eh, ci génn àdduna ki nga xamante ni moo di Maguette gannaaw ba mbir mi amee ba léegi am yu bëri yoo xamante ni mu ngi ciy xew ci ay wax loolu nag sabab ba wasaare ci topp li nga xamante ni moo di information bi ba tey kii ñu toogal nii nekk ki nga xamante ni moo di saaliw eh, gannaaw bi mbir moomu amee nag moom la police njëkk a soupçonné ci mbir mi ba taxoon ñu woolu ko moom la ñu fas yéene nag sekkal waxtaan lan moo sabab ñu woolu woon ko lan moo tax ñu bàyyi ko lan moo tax bi mbir mi amee ñu daal di nekk li nga xamante ni moo di première section bi nga xamante ni moom moo am ci génn àdduna màgget gannaaw ni ñu ko defee démb ñu fi ñëwee jël délégué de quartier dem ci kër ñoom màgget ak ki nga xamante ni moo luyee woon màgget néeg boobu aussi noonu la ñu ko defee tey ñëw jël si ki nga xamante ni moo di Saliou dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di ñu daal di xuus dugg ci waxtaan bi ngi lay nuyu. Ah, maa leen di fay ku nekk sant du leen rafetul li ngeen def rafet na trop wax dëgg yàlla moom waaw amul dara loo xam te war naa si mën a wax damay xaar ba ma wax ma laaj ma ma tontu la rek baat maa ngi nuyu mbooloo mi ku nekk ak sa ak sa sant waaw di leen nuyu maa ngi jégul nag si déplacement bi tamit leen ñëpp waaw ndax sama am di jàmm yi tamit ndax bu ñu ba problème bi bu ko yëgee tamit ñoom ñëpp affaire bi métti na leen métti na leen métti boo xam ne kenn lekkatul kenn naanatul dañuy jàpp ñëpp affaire bi diis na leen ndax dañ ne tur nañ gisuñu saaliwu gisuñu papaam gisuñu yaayam dunduñu léegi affaire bi saali bu ñu ko tëjee léegi après du am ku ko taxaw ko affaire boobu métti leen bala affaire bi méttee nag ku nekk ba ma yàlla dimbalee suturaal ma borom mbaar ma moo xam ne mu dara tëwul buñ ma woowee tombé ñu woo ma téléphone buñ ma woowee téléphone sama téléphone fay ñu yaakaar ne damaa daw man nag ku wax lu ñaaw si man jégal naa la te yàlla rek tax ak sëñ Babacar si mii ma bëgg te yàlla tax ku wax lu ñaaw ne man maa rey jégal naa ko te yàlla rek tax du ma ko toppee dara toppee ma ko tus toppee ma ko toppee ma ko ma demba tey lan moo tax bi mbir mi amee ñu daal di faat ki nga xamante ni moo di màgget si néegam lan moo tax xel yëpp daal di dem ci yow ba police daal di lay soupçonné si mbir moomu daal di lay jël si euh, daal di lay woolu ba nga dem wuyu ji. ndax dañoo amoon problème maak moom dañ doon génn génn bi yàggul ma bàyyi ko dem takki soxna ma xam ne lii may def amul benn njëriñ man xaamal takk soxna ndax sama rakk. maak moom kese ñoo nekk si kër gi du paa du maire bi du kenn ku fa nekk maak moom rek ñoo fa nekk man nag ko teg si ko tegee si kër gi léegi après ñu xool nu ñu lijjantee suñu biir ndax boo demee di dem dem ba xama foo jëm da nga war a dellu fu nga jógewaat ndax boo demee ba nekk too xale dem ba yor bant nekkatoo xale magum jëmm nga loolu moo tax ma arrêté lu ma doon def dund bi amul sens bëgg a dund ak dund boo xam ne amul benn sens ma arrêté ko mu ne ma moom du ma bàyyi. waaw ma ne ko man léegi man damay bàyyi fu ma romb di ma saaga ndey ba mu jigee ma kalaamee ko koo xam ne mooy bërëm kër gi ku ko looy woon mu Ibu ma dem ba si Ibu wax ko Ibu na ma ah comme que noonu la demee dinaa wax ak moom Ibu na ko waaw. ma rombaat fa muy taxaw si balcon am jël soo ndox sotti ma ko ma dem ba police police ginnaaw raay bu ma demee police ginnaaw raay ma def déclaration bu ñu ma ko wax ñu nga jëm ma dem Pikine ñëw dem naa Pikine ñëw naa. ma def sans plainte mu ñëw fara jox ko convocation bi ba ko fara joxe convocation bi léegi je pense que fara jox na ko convocation bi moo la respecté délégué bi ndax mooy délégué bi lu fi xew moom la ñu war a mun a wax lu fi am moom la ñu mun a wax waaye du dara ndax moom mooy délégué quartier bi moom mooy yilif ñu ñëpp mooy ñi yilif juruñu de waaye moom mooy ñi yilif ndax moom la fi moom lañ fi teg ne lu fi xew rek moom la ma jël sama plainte yóbbul ko ko bu ma ko yóbbee sama plainte léegi après moom mu saaga délégué moom si Maguette Ndiaye si boobu mu saaga délégué suñu rombee dañu gaarawa naan pomme de moromu neew Maguette Ndiaye du ñu wax loolu pomme de moroomu new chaque jour ñu wax ñu loolu pomme de moroomu new pomme de moroomu new ba yàlla yàlla lu bërëm mbaar mu dawal tawul ma ne ko mu saagawaan man ndey suñu bu mujj gi nii rek bu fi ñëwee toogu ma sax damaa ñëw ñibbi mu gis ma mu saaga man ndey ma ko nit ma ne ko nit doom aadama da ngay respecté nit Maguette Ndiaye doomu aadama da ngay respecté nit yàlla boole nañu diggante bi nekkul suñu diggante man ak yow nekkul léegi bana bana ba banaa la man foo ma de ma saaga ne dama lay bàyyi damay xam ne sama doole ak sa doole tolloowuñu yow jigéen nga man góor laa te dafa am loo xam ne nit doomu aadama foo boo fonk say waajur rek doo fonk waajuru jaamut te man aw ma ku dul sama waajur man boo ma saagaa damay gis sama bopp mun a ma man ko man bu ma saagaat loolu nag métti ko chaque jour mu rombe di ma saaga far yàlla def ba li amee nag yegu yëguma ko tiluma samedi laa xëy war waroon te jàq ji fara woo ma moo fara téléphone toog sama kër ay 17 heures 18 moo faral na ko faral affaire fu mu toll faral na ma baal ba suba asabla maa ngi woo imaam man na ko waaw wool imaam léegi boo woo imaam lu su mënta am appel man nga woo ma nga wax ma ko faral na ma waaw man na ko comme que noonu la am problème maa la xaar ma toog toog toog bu vingt heures vingt une heure gisuma fara fara woowu ma defuma dara man na comme que fara woowu ma man léegi naa toog garaaw jaru may dem Pikine ndax Pikine su ma fa demee du ma fa def dara damay taxawal foofu xaama tëdd sama néeg noppal sama xëy bu lënd bu ko defee ma jug xëy lënd boo fekk mu tombe ak feet bu mu tombeeg fen man ma ñëw ba ma ñëwee fara woo ma téléphone mooy lundi waaw lundi jour 31 décembre waaw man nag sam voilà lënd voilà affaire bi si la ñëwee nag mu déplacé wu noonu ba mu déplacé wu noonu man nag fekk ma fii man yàlla dimbal ma sama kër dama fekk ma toog fa 31 yi foofu sama kër ñu woo ma téléphone bu ñu ma woowee ma ñëw jour 31 décembre sa fii la ma fekk Pikine la ma fekk ndax affaire bi waaw ndax affaire bi la fa tombé léegi man nag dama demee na noonu man xaaral comme que noonu la demee xaar ba dama wuy ji xaw ma lu ñu ma doyee na ma ñëwal ji man ak xaar ma non xaaral tuuti màgget moom su ma juumul jour 31 décembre la génn àdduna su ma juumul si dimanche bi jàppatuma ko sax man jàppatuma jour bu mu génn àdduna ndax génn àdduna suñu borom def na lu gan waaye man affaire bu ma ko yëgee man ñu ne ma ndax yëngu ko man ne yëgu ma ndax ibu bu ma wooyee ma ku ko luwee dara ma Maga Ndiaye ak suma ñoo xeex man ne ko Maga Ndiaye ak suma ñoo doon xeex mu ne ma waa mu ne ma suma gaañ ko mu ne foog nga dem police seetal sa der na woon ne yow doo si dara mën na ko wax nañ dem ma jugee ñàgg ñu heure bi laa une laay doog yegg si une laay yegg si bu ma yegg si bi ñu woo ma téléphone ma ñëw une heure Ibou jaar fen jaara sama kër ma ñëw jaar këram bu ma jaaree këram ma ñëwaat yaa ma dégg. waaw yaakaar naa jour boobu la ma Ibou woo waaw boobu lañ ma woo téléphone man wax ma ko ma ñëw waaye dañ na ma moog souvent ñoo doon xeex rek lañ ma wax ma ne naa ah, ma waa. léegi ñu may enquête ma dugg ba foofu bu ma dugg maa dugg si fara génn dem bu ma dugg si rek la fara dem quoi damaa dugg si rek fara dem ba fara. ci police bi wala. si police damaa dugg si rek fara dem quoi ba fara demee nag man nekk si laa ñëwee ñu toog di ma enquête ba vingt 22h ba 20h 21h ma doog a génn ñibbi si waaj na ma bun la bàyyee fan nga jëm ma ne ko sama bàyyi damay ñibbi sama kër mu ne ma ma ne ko waaw. mu ne sama baay di nga ñibbi ma ne ko sama baay nii nii nii sama kër laay fanaane ñàgg si kàttanu yàlla léegi bu ma fanaanee ma xëy ma ñëw si ibu expliqué ko ibu na ma kon léegi noonu la demee ma ne ko ah ma léegi dama la fanaan sa kër mu ne ma ibu na ma fanaane fi ma ne ko ibu déedéet baal sama kër ndax wóorul dañuy mën nañ gis ma yaakaar maa ngi Pikine te fekk nag ma ah, ñu ne ñibbi naa ñàgg te fekk ñibbi ma ñàgg maa ngi Pikine ma ñëw def loolu ma fanaan sama kër Pikine ñàgg direct ma xëyaat su 8 heures ñëwaat fi 9 heures 10 heures 11 heures commissaire bi xool ma na ma bul defati yu mel nii mënu ko ah mënu ma ay euh, accuser nit dafa baaxut naan dinaa la rey dafa baaxut. nit kenn du xeexam ñu ñëw ci menace balaa ñoo ñëw ci menace boobu nga xamante ne nii nee nañ ñu dañ ko menacé woon màggat dañuy ñëw ci euh, li nga xamante ne nii yow ndax jour bi nga xamante ne nii dañu euh, faat ki nga xamante ne moo di màggat ndax danga demoon foofu wala danga nga jotoon déggante ak moom téléphone wala. man yoruma numéro am daw fa yoruma numéro am daw fa. commissaire bi loolu la ma laaj mu ne ma ndax yor nga numéro ma ne ko yoruma ko daw ma fa xaw ma numéro bi sax lu mu commencé xaw ma lu mu xaw ma lan la yoruma ko daw ma fa waaw loolu moom xam naa ko moom ndax jamono couvre-feu ba couvre-feu laa lax la sama tànk gëj a dugg néegam ba léegi jamono couvre-feu la sama tànk la gëj a dugg néegam ba tey nii. d'accord kon moo indi li nga xamante ni moo di menace de mort bi seen diggante yéen ñaar. mooy yàgg ndax ndax euh, njëkkoon nañ am problème mu xott sama yére dóoru ko laal ma ko mu xott sama yére ne dem def certificat médical ne man maa xa gaañ te laal xam ne ñu ma toogal ñëpp gis nañu xam ne sama laalu ma ko man mënu ma ko dóor ma ko dóoree ma koy gaañ góor ak jigéen bokkuñu ndax sama dóor a xaju su moom su ma ko fu ma ko dóoree yaram bi day tërgal waaye yàlla dimbal na ma laalu ma ko moom moo may imposé di ma saaga na ma dinaa la def loo xam ne ah nga dóor ma ma tëj la sànq la moom Maga Ndiaye moom wax loolu. ma ne ko barke Serigne Babacar si moo yaakaar billaahi wallaahi wal kitaab bu ne mën nga ma tëj lu askanu Ndiaye rax sama naan ko. ma ne xaalis yàlla moo yor ñëpp waaye da nga jéem a jug sa bopp xale nga tollagoo fenn. mais lan moo ko indi relation bi ngeen amoon yéen ñaar moom moo ko indi wala dafa amoon leneen loo xam ne dafa laxasu seen diggante ba war a indi en boobu. dara laxasu si dara la gé dund bu mu bëgg dund ak man man moom laa mënul dund ak moom maanaam daal dund boo xam ne chaque jour boo yore xaalis nga ànd ak moom boo yore xaalis doo ànd ak moom. maanaam day xaalis bi moo leen di tàq xaalis mooy am xaalis mooy xaalis mooy tax ngeen boolo ngeen nekk ay xarit ngeen dund dund bu sëree waaw boo yoru xaalis doo mën a dund ak moom man na ko kii man man du ma mala xar sax bu yàggee xar boo ko joxul lekk bu yàggee mu dem yoonam asma ko xam ne doomu aadama la mun na ma ne ko waaw ma ne ko man xool naa ba xool munu ma te dund bi ñu ngi ko doon dund ma samba xamul ma demba xamul moom moo ñëw indi loo xam ne doxewul noonu quoi léegi ñu yónni ma rek ibu yónni ma ibu mooy ku xullee mu yónni ma bu ma yónnee si kër gi léegi ma dugg si néegam am lu may jël pour dem jox Ibou ma ne ko bàyyi ma taxaw fii ndax ma maa weex dunk si néegu Maguette Ndiaye boobu yàgg na boobu man ma yónni woon Ibou mooy ku ko luwee mooy ku ko luwee jamono couvre na ma kaama yónni la néegu Maguette Ndiaye ma ne ko Ibou Maguette Ndiaye du ma dugg néegam ndax dafa réew ndax mën nga wax loo xam ne mu dépassé la te boobaa dama koy dóor mu ne ma dawal man maa la yónni boo demee dina la jox kii ventilateur fekk ventilateur dafa yàqoon quoi léegi mu ne Ibou naa benn yónni benn xale mu indil mu indil man ma dem ko Ibou ma dugg si néeg bi taxaw si bunt bi far bi dugg si rek yem si man ne maa ngi moom am lu ñu sekk ma ne ko suma mun a ma ma ne ko suma ma ne ko gis nga doomu aadama waroo ñaaw njott. mooy ko faat jamono ji. ma ne ko suma mun a ma ko doomu aadama waroo ñaaw njott yow kii du sa jabar demoo jàq demoo église espéroso rek la puisque orange am na puisque kere am na tugo am na orange am na ma ne ko lépp am da ngay def ndànk-ndànk rek doomu aadama waroo ñaaw njott ma ne ko man ki su ko bëggoon man yow doo si jot. waaw dañ doon fii rek maa moom daal man ko man kii doyuma ko dara teg kaay tànk sax doyuma ko barki Serigne Babacar Sy nii laa ko man ko teg kaay tànk sax doyuma ko ndax nit boo demee ba gën gën maa soxla dara sax bu nee xaalis sax moo ma gën a sol ma bàyyi ko ak yow. man naa xam ñaata ñaata ñaata at ngeen def ci relation bi. suñ génn maa moom yàggut suñ génn yàggut deful sax 6 mois deful 6 mois. 6 mois defu ko sax 1 mois sax defu ko. un mois moom def ko sax su amee trois mois lay am ay gannaaw information yi nga xamante ni jot nañu ko ci ay mbokku màgget démb bi ma fi ñëwee ñoom nee nañu màgget amoon na jëkkër ndax kon bi ngay dugg ci màgget xamoon nga ne moom màgget amoon na jëkkër xamante ni nekku fi dafa tukki. non non ndax bu muy ñëw fi di ut néeg la waxoon célibataire la fi déclaré ndax célibataire la déclaré ba waa jël ko na comme que célibataire nga kaay ndax waa ji ko am na ñu ma ko daan boole ay néeg sax am na ñu ma ko daan boole ay néeg waaye moom bëggul bokk ak kenn néeg moom kese la bëgg a bokkal néeg quoi ma ne ko comme que noonu la demee kon baax na waaw. mais ci euh, un mois yi nga xamante ni am ngeen corrélation mosulaa wax neen am naa jëkkër wala dafa tukkeek wala yooyu. mosuma kaa wax amul sax amul. mosuma kaa dégg fet mosuma ko naanee ndox sëriñ Serigne Babacar si moo yaakaar billaahi wallaahi te lu ma la giñal sëñ Babacar jàpp ne mooy yoon. d'accord yow mos nga plainte ki nga xamante ni moom moo di Maguette mi nga xam ne tey moom moo fii daal di bàyyeekoo yow moom tamit mos na la plainte moom lan moo indi woon plainte bi nga xamante ni defoon na ko ci yow. mooy lu ma la waxoon mooy lu ma la waxoon mooy plainte boobu mooy lu ma la waxoon mooy je bi laalu ma ko xëcc xott sama yére dem boobu nag moo indi woon plainte boobu ba fara yàlla dimbali fara jot bu ma yónnee plainte bi moo yóbbu ko jëlaat ko fara mun na ko xam ko nee na moom dëkk fi ndax man. bu ma pare moom bu ma bindee plainte man du ma dem wuy ndax man dëkk man dëkku ma fi nee naa man dëkku ma fi man soo ma bëggee plainte da ngay dem ba fu ma dëkk fu ma cosaanoo nga ñëw fa soo fa ñëwee boo ma plainte moo ñëw wuy si man maa ko wax loolu. ci plainte boobu euh, gis nañu bi mbir mi amee bi Maguette génne àdduna euh, police dafa ñëw fii daal di patam patame ki nga xamante ni moo di euh, chef de quartier bi di Fara gannaaw ba ñu jotee ñam ay information que ne Fara mi nga xam ne moo di chef de quartier bi def la doon couvrir ci lu bëri ndax loolu tamit mën nga ci indi ay leeral. non Fara sama mag la sama mag la. sama mag la sama grand frère la sama lépp la ndax loolu ñuy wax dara amu si fara sam papa ak papam ñoo bokk benn dëkk tey bu ñu génnoon fii tey suñu génnoon tey man maa ngi dëkkoon fii si wateraay bi si wateraay bi fii laa dëkk waaw maa ngi dëkk si wateraay bi fii laa dëkk falaa laa juddoo fa laa yaroo ba paa bi génn àdduna ma jënd kër dem tabax yi ñàgga dem dëkk ñàgga amatuma pikin dara pikin samay jaam am na jàmm ñoo fi nekk ak samay nit waaye Maguette Ndiaye lu yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla suuf ay euh, si wax dëgg yàlla waaye moom bu nee si wàllu fara rek bu si duggee da si des ndax fara sama lépp la fara du du fara du sama jaamur kër gi sama kër la bu ma neexee mën naa fi dugg añ ba suur reer ba suur naan ba mànd génn jaar dem sama yoon te kenn du si mun dara waaw gannaaw bi nga xamante ne nii eh, génn àdduna ki nga xamante ni moo di màgget coow li bari lool ba police daal di lay wóolu nga dem wuyu ji ñoom lan lañ la wax dañu laa setal wala dañ laa ne rek boo demee après dinañ la woowaat wala lañ lañ teg sa loxo. enquête nañ ma buñ ma enquêté ba enquête bi jeex ñu bind génne benn papier bu weex signé ko ñu ko signé après ñoom je pense que waxuñu ma dara ñëw diwaat ma joxaat ma beneen papier ma xëy suba mooy loolu mu jeex non benn yoon boobu kese la benn yoon boobu kese man du ma waxoon moom sekkuma moom dara sekkuma moom dara benn yoon boobu kese la waaye dara waaw. génn ko àdduna ki nga xamante ni moo di màggate ba tax say mbokk yëpp am li nga xamante ni moo di njàqare ci côté boobu. waaw loolu moom metti na ma ndax sama téléphone chaque jour kar kar kar kar loo xam ne defu ko waaye ñu ji ma ko metti na ma ba si kanam yàlla nekk metti na ma ba si kanam yàlla waaye képp ku mu wax maa rey rek maa lay jéggal te yàlla rek tax te fekk defuma tiluma xaw ma sax nu mu demee loolu daal xam naa ko si dara fekk ma fi ma fi yoru ma sax numéro am xaw ma numéro am lu commencé ndax nit tamit da ngay wax loo xam ne ku dee ak sa suñu borom soxla loolu dëgg dëgg mooy njëkk mooy mujj yàlla ne alkas bi ko naan dal la rey waxul dëgg mooy njëkk mooy mujj ndax dëgg boobu tey ma lu ma te wax rek damay wax dëgg su loolu man maa rey damay taxaw ni carrément man maa rey waaye yàlla daf ma dimbal sutura ma boo ba loolu amee ma fi ndax dañ maa tuumal man bu doon sama sago tuumal boobu ñu ma tuumal képp ku ne no ah, man maa rey rek jégal naa la te yàlla tax waaw. d'accord kon naka nga yëgee génn àdduna ki nga xamante ni moo di Maguette ndax ki la woo def la ne def doon xeex rek waxu la woon ko ne Maguette dafa génn àdduna ci. waxuma ko ba léegi waxuma ba léegi Maguette Ndiaye génn àdduna dara ma suma ak Maguette Ndiaye ñoo doon xeex ndax bu ma demee ba commissariat lañ na ma di ma enquête di ma na ma yëngu ne Maguette Ndiaye dee na ma ne ko dee mu ne ma waaw ma ne ko noonoo non loolu amul. ma ne ko loolu amul mënu ma Maga Ndiaye gaañ ma ko yow dëgg yàlla yàlla dëgg rek la bëgg mu ne ma ne ko ma ne ko doog policier commissaire ma ne ko maa ngi koy doog yëg te yaa ma koy doog wax ma ne ko yow mii yaa ma ko wax mënu ma yëgoo ko yaa ma ko wax mu ma mu yaakaar ma ne ko yaa ma ko wax yaa ma ne Maga Ndiaye ko comme que yaa ma wax Maga Ndiaye dee ma ko yëgu ko ma ne ko yàlla muñ ci xam ne yëgu ma ne Maga Ndiaye dee na si yow laa ko yëgee nag mu ne ma ne ko waaw après ñu na ma demaatal toog ma demaat toog enquêtaat ma ba vingt heures vingt une heures vingt deux heures presque laa génn foofu ma ñibbi sama kër ñaaga direct waaw mu xëyaat suba delluwaat police ba waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la nga tàggatoog internet yi nga xamante ni ñoo lay seetaan. man lenn kese moom ma si métti man je pense que lenn rek luñ may tuumal ne maa rey te fekk rey ma man looloo ma métti man man képp ku ne man maa rey du ma xoolee bët boobu barki Serigne Babacar si moom yaakaar billaahi wallaahi wal kitaabi baal si xol bi seddu guy waaye nag samay der samay mbokk sonn nañ ba damay dem sax fenn ñu may xoolee bët raykati nit te ku ma ko xoolee wallaahi bal naa la jégal naa la te yàlla tax jégal naa la te yàlla tax jégal naa la te yàlla tax aw ma dara loo xam ne tamit situation bi metti na dafa garaaw métti na sama rak chaque jour koo xam ne maa ngi ñoo bokk ndey ak baay ba léegi rek la ma mujj woon na ma boo wàccee bul jaar Pikine wallaahi na moon jaar Pikine na ma noon jaaroon dem ñibbi ñàgg ma àq àq dafa am dala dafa sew ba dalay topp ba sa biir bàmmeel ma xam ne nit ko jugee fee ñoo déplacé ñoo ba fii tamit nga yàqal ko yi paasam yàqal ko yitteem yàqal ko léppam nga ñëw fi teg ko teg ko fi nga dem ñibbi sa kër loolu àq la ni ñu ma amee lay àq noonu amee noonu laa lay amee lay man tamit loolu nag laa bi loolu moo tax ma jël mu ñëw fi direct ñëw fi loolu la bi demee nag maa ngi leen di jaajëfal yow tamit ok jërëjëf jërëjëf mbokk internet yu doon safoo di seetaan site bii di wasaare tey ni ma leen ko waxee ñu ñëwaatan file ci Pikine seet si ki nga xamante ni moo di Saliou gannaaw ba Maguette génne àdduna ñu soupçonné woon ko ci mbir moomu ba taxoon police daal di koy wóolu waaye ba ñu ko wóoloo déglu ko ci la ñu ko bàyyiwaat mu dem euh, dégg ngeen li nga xamante ni wax na ko li mu sékkoon ak Maguette li taxoon police wóolu ko euh, li nga xamante ni moo di plainte yi nga xamante ni moom la euh, jotoon dox digganteem ak Maguette tamit loolu tamit indil na ci ay leeral comme ni ma koy waxee saa su nekk ñun waa wasaare bu mbir amee dañuy dem dem ba fi nga xamante ni foofu la xewee wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo la ñu tuumaal ci mbir yi ñu fexe leen a gis ngir mën leen a fexe tàllal micro ñu indi ay leeral ci li nga xamante ni moo di li xew ndax askan bi la ñu fi nekkal kon askan bi bu ñu amee leen loo xam ne day leen dem ci seeni xel rek dañuy def suñu kéem ci laay ngir mën leen ko indil ci ay leeral di ko jaajëfal bu baax a baax ndax moom tamit dafa nekkoon koo xam ne dafa liggéeyi woon waaye teewul mu xëj xëjal ñu ci temps bi ñëw jaar si fii wara a ñibbi ñàgg loolu tamit ñu ngi koy remercier bu baax a baax ngir moom tamit mu indi mën a indi ay leeral ci li nga xam ne moo xew mën a setal njeextal delam ci woolu bi nga xamante police woon la ak li nga xamante ñu ngi koy wax que ne moom moo rey Maguette moom indi ci ay leeral loolu lépp daal dina koy expliqué di jaajëfal al amin sama cameraman bi ñu ñaanal Maguette mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante fi la jóge jërëjëf ba beneen yoon incha allah ak yeneen ak système beneen taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag